vacances scolaires yaa ngi waaj a jeex njàkkareeg tiis lalu ci ndodd waajuru ndongo yi li ko waxal du lenn lu doon mbas mi lëmbe àdduna bay faat doomu aadama yi ci sunu réew ñenn ci ay ndongo yu ñu fekk ca université Cheikh Anta Diop ñu ngi ñaaw lu leen mel ba tax ñuy sàkku ci xale yi ngir ñu mën a des seen kër ba aar seen bopp ci jàngoro jile. Mokhtar Ka vacance boobu pour man am na solo vu que dañoo nekk ci période corona. bon peut-être vacances boobu noonu bu kenn ku nekk toogee sa kër bon peut-être tamit mën nañoo def liggéey boo xamante ni maanaam dina am atu concernant ci corona bi vu ko mën nañoo désinfecter classes yi mën nañoo def ay nettoyage vu que école moom dafa nekk milieu boo xamante ni ay nit ñoo fee daja te nit ñi dañuy bëri te nit ñi dañuy taxaloo. waaw di jokkalante moo xam seen i loxo moo xam seen i lekk là aussi bon bu ñu nekk à vacances aussi war nañoo profiter aussi désinfecter école yi. waaw boo gisee ma téye sama papier def sensibilisation maa ngi daje ñoo xamante ne xam naa leen maa ngi daje ñoo xamante ne xam ma leen mais bu may dox dama xool ku ma xam ak ku ma xamul vu que corona bi dugg na ci cité bi. mën naa wax je ne suis seul man kenn rek nekkuma fi dama fi nekk ak samay nawle tout simplement dama bokk sensibilisation yi pour que bañ corona bi am ay. tànku kanam fii nii ci biir cité bi fii ko dugg si na fi te étudiants yi bari nañ car macha allah de telle sorte que tey tamit ñi nga am ay ay relation yoo xamante ni bu nekkee corona bi dugg na fii am fi ñaar ak ñetti rek buñ deful ndànk rek ñëpp dinañ ci jot. man maa ngi tudd Pape Mohamed Camara étudiant en deuxième année de pharmacie. c'était assez normal puisque Covid bi déjà dafa xawoon euh, mun naa ne indi benn genre yàq ci. calendrier scolaire bi donc c'est très normal que en ce moment que mu am vacance yi nga xamante ni en général doo woon am instant bii nii donc euh, je pense que il n'y a pas de souci à se faire on va essayer de rattraper la chose loolu dina xaw a compliqué tuuti parce que pour jox leen déjà yenn conseil il faudrait que ñu mën a nekk dans les conditions appliquer conseil yooyu noonu déjà réalité yi nekk foofu noonu du ma ñàkkuma ko xam mais soo nekkee ci cadre universitaire da ngay fa da ngay da ngay lu bëri dalee xaw a ëmb bu ñenn ñi gisee ne xale yi dañoo war a toog seen kër ñeneen ñi jàpp ne wareefu ndongo mooy dem ca lekkool ya sàkku ji xam-xam. man maa ngi tudd Pape Abdou Khadir Diack ma sañoon moom booy moom duñu jël vacance parce que nag jeunesse sénégalaise moom foo gars yi leen il faut les occuper parce que booy moom bon tu t'es dit war ñoo am benn liberté mais plus de plus ñu gën a libre rek de plus en plus ñu gën a def ay dégâts. wala soit ñuy dugg ci loo xamante ni aussi da ngay ree ba tas. Hélène Bontine laa tudd je suis étudiante en cinquième année de médecine j'ai entendu dire qu'il y a des étudiants qui ont été infectés mesure barrière yi moom <laughs> du élèves y kese tout le monde doit respecter tout le monde doit respecter les mesures barrières et moi je dis que concernant retour à l'école c'est un couteau à double tranchant parce que les élèves ils peuvent ils aller à l'école bu ñu demee école. mën nañ tase ak koo xamante ni dafa am corona après bu ñu ñëwee ñu infecté élèves yi et tout contaminé leen je veux dire ñu contaminé wala benn élève boo xam ne il est déjà contaminé am na corona mais pas encore diagnostiqué daal donc moom mën na wàll yeneen élèves yi. dans l' élémentaire su ma benn message boo xam ni moom laay mën a sànni mooy nañu respecter les mesures barrières c' le minimum qu'on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire ñi nga wax corona corona mais ba léegi leeragul complètement gène la boo xamante ni dafay muter dafay changer dafay évoluer donc mais les mesures barrières sont constantes du ñu changer lool soo ko defee au minimum yow li nga war a def def nga ko maintenant lu ñëw on saura que rien n'est parfait. ma sañoon aussi puisque ce sont des élèves jàng nañ des étudiants jàng nañ que chacun reste chez lui nan toog seen kër sensibiliser les parents sensibiliser la famille. xale yi. li ma njëkk a wax rek mooy nañ leen aar ba pare ci école bi bu fekkee ne liñ leen di aaree école nag xaw na manqué kooku day jaaxal ñëpp waaw nañ commencé ci biir école xale yi ñu aar leen bu baax bu fekkee ne aussi mun nañ prolonger vacances yi ñu prolonger ko tuuti gën a jëlaat suñu suñu matukaay jël ko ci biir école yi wa xam ne xale bu ñu ñibbee kër ga aussi parce que xale xamul dara mun nañ ko for côté bu nekk nag waaw te bu ñu yegsee tamit ñëw song sa maam song papa song yaay te ay mag lañ wax dëgg yàlla kooku day indi beneen affaire naam mbas mi dugg na ci université Cheikh Anta jële ko fi dina doon lu metti lool ba tax ñuy sàkku ci nguur gi ñu taxawu waajur yi ak jàngalekat yi ngir ñu aar xale yi bu baax a baax ba feebar bi du mën a dugg ci lekkool yi naam xale mooy yore réew ëllëg